parce que tamit nit tëkk na làmb attaqué teg ci làmb mhm. Aziz mu def war na ko def mhm. day ñaax ñaari mbër yi te day jaay bisam te li mu tegal ñaari mbër yi kenn ku nekk bëgg ko am mais fii ci Sénégal bu passé CNG li mu reconnaître mhm. fii Modou Lo moo fii roi kenn du ko dindi mu daan mooy roi buñ ko daanee ci ko ku ko daan ñu xam ne yaay roi waaye Aziz li mu teg war na ko mën a teg Aziz alalam na indi teg nga ñaari mbir ku ci daan boole naa la ci indi ubbi le budget sax fi maa nga am nangam. Mhm. keneen ku mën a bëre ñooñu it boo leen daanee mu defal la loolu. loolu loolu kotam la su ko neexee am na plein droit def ko. Mhm. drapeau la teg pour ñaari mbërëm ku ci daan dana la yokk dayo dana doon activité boo xam ne say seetaat di set dañ ko fi mën a bàyyi. Mhm. dañ ko fi mën a bàyyi. su ma la déggee daal moom day jaay kombaam daal. day jaay kombaam. li mu def ko ku mu doon yow nga def ko mhm. waaye ne buñ bëggee dégg buñ fekkee ne rek dañuy wax te yàlla te dëgg tax mhm. roi bi moom Modou Lo la mhm. ku ko daan doon roi ku mu daan boo liggéey mooy nekka roi mu ngi noonu loolu da rafetlu naa ko loolu rafet na ko loolu kàddu yi nag ki nga xam ne mooy Ibrahima Mbaye la grand Ibrahima Mbaye manager loolu nag moom wax na ko mais euh, moom la engagé Bakary Yaram ah bi nga déggee kàddu yooyu yow tamit en tant que promoteur te gars yi ñu nii nga xam ne mooy roi des arènes du ma ni sax CNG ñoo koy ñoo koy désigner mais ab pot la boo xam ni wala trophée boo xam dañ koo teg compétition la da ngay xeex di góor góorgóorlu di takk sa ndigg di laxasaayo ba jot man cee teg sa loxo Modou Lo nag moo àgg au sommet léegi nag bu Aziz indee lii est-ce que du xaw a handicapé li nga xam ne moom la Modou Lo indi wala du ko tilimal wala du ko salteel boo amul loo ci waxee yow lan ngay wax non mais man je pense que amul lenn luñ ci lu ci lu ciy tilim wala lu ñuy lu ñu ciy rafetal aussi mhm. Mhm. donc euh, Sénégal yëpp jàpp nañ ni Modou Lo mooy roi des arènes. Mm. n'est-ce pas depuis ba ko màng de daa doonee ku ko daan ñu jox la couronne bi. Mm-hmm. je pense que noonu lay demee. donc euh, am na fi ay roi des arènes yoo xam ne bëri nañu daanu perte titre bi ñu bëre bëre ba daanaat jëlaat titre bi. Mm-hmm. je pense que am na fi. su ma fi jeex waaye mm-hmm. donc euh, Albourakh ñoom bu ñu tëggee seen làmb. ne du combat royal parce que combat royal moom mën naa ne mooy tëggal mooy tëgg boppam fii Sénégal. Mhm. il faut juste nga tëgg roi des arènes ñu ne la combat royal la. Mhm. donc moom moo génnee euh, je pense peut-être innovation la ko mën a tuddee de leur mhm. part. innovation la quoi donc mu créer empereur man li ma ciy rafetlu mooy dinañu am un vainqueur boo xam ne il sera il sera glorifié il sera décoré laay wax quoi. Mhm. parce que bu ne day am vainqueur bi dinañ ko jël. moo am ay privilèges yoo xam ne mhm. am ay raaya am ay vacances yoo xam ne dañ ko koy génneel am ay salaire yoo xam ne utul ko cachet boo xam ne dina si jot damay damay damay xam ni euh, innovation bu mhm. extraordinaire la quoi donc mbër la boo xam ne bu daanee dëgg dëgg dëgg yokkute la ci làmb yokkute la ci làmb te puis yokkute ci ki nga xam ne moo war a daan parce que kii koy bëre yaa ngeek ñaari mbir sa reliquat mu ngi CNG xam nga ko bu yàgg ni sa reliquat moom boo daanoog boo daane da nga koy jël mais buñ la daggul boo daanee buñ la daggul waaw non buñ la daggul bu dee cent franc moo fa nekk du yokk gars yi foofu laay wax bu dee yow xam nga ni cent franc moo ah. bu wàññeekuwul du yokk ah. mais ñu ne la carrément bu fekkee daan nga dañ <laughs> la ciy dolli dina am luñ la ciy dollil loolu beneen beneen ah, beneen aspect bu ah, extraordinaire la ci wàllu làmb man man man foofu laa ko gisee quoi eh, donc après nag ñu naan empereur ah. roi donc loolu moom titre la boo xam ne eh. dañ koy joxe moom moo génne moom moo génn ci empereur donc euh, na organiser drapeau empereur bi loolu rek lañ ci def ba pare di rafetlu aussi bu fekkee mbir mi ah mais titre la rek. drapeau moom titre la mais Aziz mbaxana oram wala mbaxana. caxaan mbaxana empereur. waaw amu ci droit bu ko neexee. bu ko neexee titre la rek. danañ ci desuwaat Fouta <laughs> en tant que promoteur. a jege ah waa parcelle. moom waa parcelle la. <laughs> a jege. ah Zarko rek. Zarko sama doomu ndey la. sama mag la sama lépp la. boog Zarko eh. ngeen a jubóo. <laughs> Zarko. kañ ngeen jubóo. sama waay la sama lépp la ba mu génn. kañ ngeen jubóo laa wax. jàpp rek Pia. sa waay de barki Rasulullah. waaye dama ne la moog Zarko ay jamono ko ne dafa yoru yet doo sama bokk xaal pulaar la ñoo bokk graaf xaal entendre la woon jeex na en tout cas yàlla na ko yàlla may ndam mu daan loolu moom yaa fi wax amin ñun suñu yoon néew cee amin laa Zarko waaw yàlla xokk victoire loolu yow yaay wax amin incha allah man sama yoon néew de fi mu toll nii man xoolal Zarko bi bu jën ku daan. sama ndox mi laay jël naan dem reeri. sama nuyu ñu mobiliser Grand Yoff yëpp pour cent la ñuy def Grand Yoff. génn jàppale Zarko yàlla may ko ndam si combat bi. yaay wax amin ba léegi yow. amin yàlla na ko yàlla def si barke Seydi Aboubacar. Abdou Aziz Ala Ndiaye. balaa ngaa ñëw si Abdou Aziz Ala Ndiaye. non non non te li ñëw direct. ah mais doomu réew mi. Abdou Aziz Ala am na leneen loo war a wax. Abdou ah, Aziz du ma wax sama mais am nga leneen loo war a wax. yaa ko laaj maître bi. xam nga Fouta. Fouta yow xam nga Fouta yow ala. xanaa laajoo métti Fouta léegi lan nga léegi lan nga bëgg a wax. <laughs> ci waa ji activiste boobu ñu arrêté. nañ ko <laughs> a wax. <laughs> ñoom ñoo ko fi njëkkee amul lu ñu fi waxul. tout court ah, léegi wuy ma xam naa moom jëm léegi wuy ma xam na ma bëgg. te dañoo war a génn ci laaw nga bàyyi Abdou xolal xam nga comme ñëwewul. Ah. sëñ bi Abdou Aziz Alain Ndiaye. Lamine a Dakar kooku ñëwewoo ko. lan nga mën a wax ci Abdoulaye Alioune Ndiaye bu baax mi nga xam ni empereur la bëgg a indi day wax ci Aziz. waaw daa ñëwee Aziz. yaay wax loolu waaye Aziz du wax loolu surtout Lamine Fatim Bakary bii ah, waa ji. ma ne la yaay wax loolu waaye Aziz du wax loolu. le le fils de Gaston Xali Mbeng. bokkam la bokkam bokkam taalibe Cheikh la. waaw sama mbokku taalibe Cheikh la. muy liggéey lu solo Tivaouane. waaw innovation bi mu war ci làmb ji entre ki nga xam mooy Tapha ak Balla ku ku mu yokkal la ay privilèges. takkal la ay ay ay jàjj salal la mbaxana wan ni la yow daal même donte la doonu roi des arènes waaye taxawaay roi des arènes ngay taxaw am na ci wax am na si droit de buur très bien bu ko neexee ndax moom moomum yëfam mhm. rakamay tëgg mu jiital ko ne ci ginnaawam di ko jàppale ndeysaan day jaay làmbam te boo seetloo dipp ba mu nee bàyyi naa làmb tout le temps bu communiqué génn wax looy dégg sénégalais li ñuy wax bu dul woon ak yéen làmb ñaaw ñëpp di leen tagg te loolu wane na ko. Mhm. ba ñëwee ba léegi ñu ngi innové. di tëgg ay bis yu rëy. Mhm. nit ñi di seetaan di kontaan. kenn ku nekk di teg lu la neex. kenn ku ne di teg la neex. man defaluñ ma dara mhm. mais dama wax loo xamante ne moom laa gis. mooy neexal làmb aussi. non loolooy am sax. gudduñ toll nii ñoom ñoo yor làmb. dëgg la de. événement yu mag yi fi ne ñoo ko tëgg. ah bul waxati loolu de. si. bu da naan événement yi fi gën a neex. Euh, bokk nañ ci ñi ko tëgg. tuuj day xam kon yow kon yow Thiat Awa Fall Thiat Awa Fall ak ak Pam Doy yu mag yi. yu yu neex la. comprendre nga. waaw amateur yi bëgg nañ ko. combat bu neex nga dëgg boo déggee ma wax la loolu. doomu dàngu. giri de du combat bu mag combat bu neex. boobu mooy boobu mooy combat du siècle. lu waa ji waxoon bul xeeb sa noos. Ah. man xeebuma lu ma yor. ndeysaan hmm. xam naa li ma tëgg laal la. Hmm. mais guddiñ tol nii ñoom la fi yàlla teg. dëgg la dëgg la waay nañ leen ko nangul dëgg la. Aziz am na plein droit. Mhm. jaay bis bi. wax lu ko neex pour bis bi mun a réussir. dëgg la mais tey ñëpp xam nañ ne. Modou Lo mooy roi des arènes. loolu mu neex nit mu nakari nit moom la fi yàlla teg. dañ ko koy nangul dafa am yoon na yoo xam ne nag boo siy dugg. Mhm. pour man contre la mbala soxor mbala ay détails jaru ko. Mhm. communication maître xam na li may wax des nit mun naa toog këram. xool luy yëngal Sénégal. Mhm. ñaari kàddu lay génne bàyyi nit ñi ak coow li. Mhm. xam na lu ko si fekk. Mhm. Aziz xamoon na ne carrément bu waxee lii nit ñi dinañ génn wax. mais ragalu lu mu wax bu subaa bu ñu ko dékkaatoon mu wax lu gën a piir loolu. mais tey nag boo leen xamul mun nga jóg fee di wax gauche droite yi gars yi di def yëpp di defar ay vidéo ñii di kaas gauche ñii kaas droite dara dérangé ko ci gisuma ko de teguma ko bët mais mbokk la le 26 ñu ànd ak Yaram Art Events. Gris 2 bu ñëw dox ci